compte tenu de la situation il faut nous dakkal les répétitions parce que nous on ne peut pas attendre une semaine pour donner euh, des information parce que sinon dañuy continuer à faire des répétitions ou des formations wala ay euh, euh, je sais ateliers doctorat ak or que il est temps que les gens arrêtent Nous hein. néew ñu mais on a quelques quelques rumeurs comme quoi am na ñoo se ressent pour répéter moi j'ai dit il faut qu'on arrête ba affaire yi passé ñu xol li nga xamantene xëñna euh na su Nous bu fekkente à autorité bi levé na bi ñu continuer suñu mais tant que levé wul le mot d'ordre pour qu'on euh, continue euh, à travailler nous dañuy arrêter comme ni ko président de la République parce que nous sommes tous des citoyens parce que nous nga xamantene qu'aujourd'hui, ñoo nek aujourd'hui nek ay tolof tolof vraiment nous nangul sa mbokk itam dans cette situation là affaire c'est extrêmement sérieux non la ñu defoon ci mbënd mi jël suñu un million de Dakar moo porté woon le projet un million ñoo ko génne dañ jox ko ministère de l'Intérieur. Lolo a affaire la boo xam ne kenn qui ko ci dynamique boobu lañ nekk nag aujourd'hui euh, des ñaan artistes yi lu ci waay mën a am moo xam 1000 francs le, moo xam 2000 francs le, moo xam 500 Le lu ci waay mën a am je m'adresse à tous les présidents qui sont dans les différents arcos installés dans les 14 régions du Sénégal et départements. Nous avons, nous cotisons 500 francs chacun ou 1000 francs chacun lu ñu am jokk trésorière ñu avons loolu yépp ñu voilà contribution bi nga